ñun bëgg nañu daan nañu def mais li ñu état indil mosuñu ko am li ñëw tey ci moyen mairie mënu ko kon état bu taxawee jaar ci ministère indi indil ñu ko dañ koy sant yàlla bu baax mais problème bi yëpp mooy suive bi ku nekk sa buntu kër nag buñ la jëlelee oto yi bon yi baleel la nettoyé la bu fa amaatee yow la neex kon yaakaar naa maa ngi ñaan tey waa Médina yëpp. ku ñu defar sa koñ jëlee la fa la bon yëpp nanga nga fexe ba bu mu fa amaat na nga ci góorlu ba mu jaral la xuloo jaral la xeex man mi mu jaral ba ku ma mere ma ne amul problème dégg naa façon bu ne dégg naa seeni interview ni ñu changé wax ji ak ni ñu ko indee waaye méttiwu ma ne Médina baax rek sama waxu démb mooy sama waxu tey Médina bu dee lu mu am jox ko waa Médina bés bu Médina soxlaa ay doomam war nañ ñëw jàppale ko ku ko jëlee neneen du sama problème wante Médina loolu laa ci mën a wax Médina daal tey soxla naa ay doomam benn pour opération bi ñaar pour suivi bi parce que tamit ñu déployer moyens yu tool nii yëpp def ko ci yàq seen i jot ñoom nelawuñu taxawul Médina ñu xëy suba ku nekk la fa nekkoon nga seetaan mu dellu siwaat daa mel ni kon peine perdue la ñu def kon maa ngi ñaan ñëpp pour suivi bi ñu bañ ko yemale ci agent yi dem di ñaan tamit borom kër yi opération fu mu nekk nañu génn jàppale agent yi jàppale leen ku ci bëgg a dem toilette ku ci bëgg naan ku ci bëgg leen ñu yombalal leen ko. nañ ñëwaat un peu euh, ñëwaat si li nga xam ne moom mooy. Euh,